foofu talaata saalu passé ma demee ci sëñ ma gis talaata am rek ñett fukki laaya dañ ci kaate bismillaahi rahmaani rahiim yaa ayyuhan nabiyyu kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xam ne yonent dafa fase jabaram xam ko rek ba mu ko fasee nag dina Omar dox di fab tuuti kotti ci boppam rek naa ji la xataa daal yàlla na mucc ñoom fii moo tax yonent fase seen doom waaw ba lay Aysata ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay Aysata ma ne mbooleem jabar yonent bi yëpp jigéen daf leen daa wuti ñëwee ñëwee di fekk fi jigéen rek mu wëññeeku lu may ay sota dana tàngoo ñëw nañ ci keneen balaa sax jiw wàcc ci moom ba daana gis jigéen sax moom lay ay sota moo tax ba mboolem saa ba yooyu ci mos a gis jigéen ci dund ak yéenam ba yooyu it dañuy àdduna yéen ñëpp ci maxa nañ lay ay sota mu jëlee ci maxa ndax gisoon na jigéen moo gis jigéen ñoom ba dëkk ci yàlla ne ko soo demee ne yàlla na wax yéen a mu mu fay li xam te suñu moom rek ñu xataab rek ndax xam te su daal ku baax la ba jigéen demee yàlla yónni ko ne ko demal ni yonent yàlla Muhammad na fay lii xabsatu xabsatu naafilaatum di jullit xabsatu xooraakoon la te suñ jabaram daal jana lay bokk de bu mu ko fete day jigéen yooyu yonent fay lii xabsatu moo tax xabsatu lay ay sa te jabaram ñu jël yëpp dañ ko daa màggal bu ñëwee daal ñoom ñëpp ñu jóg taxaw màggal ko ba mu dee lu may xabsatu xabsatu moom du ñëpp jógee taxaw moom mu toog jóg lay ay sa ne ko alu tax dama ñëw dina màggal yow dama màggal mu ne ko ñoom dañ laa war a màggal yaa leen gën man nag gisuma loo ma gënee Abubakar ay sa baay Omar ay sama baay ñun ñëpp yow kay seen jëkkër gisuma daal lu ma la war a lu ma la war a màggal yéen mu ne ko nga xam ne li la yonent ko fee man maa yóbbu ci biir yàlla pour mu fay la day ñu fay la rek gannaaw dana mooy itam soo xamee ne seen mbayaan sa rek ñu jóg taxaw màggal ko rek bu yonent ko fee xàpp si nag jërë yàlla wax ne yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi isa talaqtum lam fase yéen nisaa jigéen isa talaqtum lam nam yéen a fase nisaa jigéen fa taliquhunna fase leen leen leen def yéen ci hadda seen rek boo bëggee fase jigéen fase ko ci hadda mooy nga ne ba mu rek ba laab laab boo xam ne jotoo jàng moom dara nga soog koo fase waaye bu ñet bee waa mu nekk jumbaleen nga fase ko wala laab boo xam ne laal nga jamono ci xamuloo jàpp na bi tam jigéen nga fase ko ja kooku tere nañ ko da ngay wàcc ba mu rek ba ko jotoo laab moom dara nga fase ko fase na itam nga def ko benn pasale waaw koo takkale naa leen dafay na daje te na ngeen waxtu na daje ndax nga mën a fay li balaa jeex wattaqulaa ragal yàlla rabbakum seen borom seen laa taxul jënd yéen bu leen jënd leen muy jóg fii nañu ci ci néeg seen wala yaxlu na buñ jënd ilaa yaa dina wala bu dikkee nañu di fay sa ci jàlloo ñu dee ci yaa jibi boo fasee jigéen itam bu ko bëri ñu ngeen fee bay ko fa bañ a daan jeex rek wasil ko loolu doodu laay mooy dayal yàlla omo yota anda ko jégnañu doodu laay dayal yàlla fa xattalama tool ñu ma taw boppam la ndaa kadri xamula laala laa ndax dala yàlla ñoo gisi dana mu sot dara sànni ko ca gannaaw moom la tase am rak mbir ci sànni la lu tax yàlla sant li nga fasee loolu mën naa am ñaar ci jigéen tey balaa lan nga bëggaat ko boo nag fasal mel ni pase rek ta ta waaw tay wattu xe daja bala bu balaa xe daama jeex su fekkee sa xel jal na jë nga dal di ko fay rek mu nekk di sa jabar jigéen bi parce que pase tay li moom jabar xam jéggal daan jeexu bi bone dañu neexee nag parce que ma dor na resa ba ndax na dem jagañ nañ ajalawu na jeexat xe da seen saam si koo na jàppale neen di ma rofun ci ni di ndor aw faal ko ñu ngeen parce que ñoom di ma rofun ci ni di ndor de su fekkee xe da jàngal nga ko jeex nag te bëgg nga koy jàpp demal na ko fay ni naa la bu ko defee jigéen bi ñu fayli ko ngir bëgg ko lor nag loola rëccoon yëpp nga loraal ko ko waa bu def loolu de nañ ko fayli rek ngir bëgg koo jàpp de waa ak silo soone loolu rek sa yaab nañ ñaar war a maandu mun ci ci doo jënd sa boy pafe na nga seede na nga sàkk seede na nga ne bëmb rek ba póot póot moo xam ne laaloo ko fe nga ñëw ne ko fase naa la benn yoon te na nga sàkk seede lu jiit loolu ne leen damaa fase sama jabar kat waaye pasen tay li laa ci dund seede boobu yàlla santaane di tase te santaane yi doon seede ci sëy ba mu tuddee takk sëy tudd doon seede mu tudd tase nag tudd seede di la fóoree ni jële nii kon nag sëy bi ci boppam itam war naa am seede de moo tax sëy bi yëpp yëpp lu néew néew waaw te amul ñaari seede waaw ñu ko seede de ala waxuma du yëpp sëy bi gën a yëpp sax waaye war nañoo fàtte ñaari seede seede ci lu ko waral di sëy bi amul seede xanaa ñu def ko te sekkare rek kenn du xam ne sa jabar la bu dee doo ko donn boo dee mën naa am ñu xañ ko dono di ca doom juddoo ñu xas ko defe ne juddu na ci biir tey loolu yëpp waaw moo moom la seede di sànq waaye saaba yonent yi daawuñu seede loolu ñuy takk ku ci takk ba noppi nag da nga fàtti ay seede ne diw takk naa diw waaw sara xarab moo tax ba fàtte seede yi fekk pas-pas ba ak sàkk seede yoo xam ne da nga xam ne gannaaw pas-pas ba moo ñen buñ ko parce que gaa waxuñ ko woon seede fii ci fase la nga waxee seede ñu xam ne tey ñoom fase laaj seede fay laaj seede kon fase ji koy ji dóor itam waaw war na laaj seede de moo tax yéen ñu tey ñu njub lu muy jiire dana am kilifa bu ko war a maye kenn dana digg lu mu néew ñaar danañ ko seede waaye lu mu néew ak góor bi dee ak góor bi ak jëkkër bi rek barab bi koy itam yi mooy góor bi jëkkër bi ñaarangoo kaat ñaar danañ ko seede lu néew néew ñeneen ñaarangoo ak kilifa bi koy maye muy juróom te lu mu néew néew juróom yi war nañ ko def lu ko may rek waaye seet tur rek ko xaram na waa ku ñëw taxawal leen saa dana sell fa ñu laay ñëw yàlla su fekkee ne nii waaw te woo nañ la seede ci pase wala ci sëy na nga seede seede sa sa na nga ko joxe ngir yàlla saalikum loolu seen yoon su def na waa bii ci moom mën kaa ne keneen keneen yoon dina ma gëm laay ci yàlla wala yoon bi ko see saaxi bi daa jëri ji wala ne tax ku ragal na mu laa yàlla yàlla mu def loolu ñaan ko maxrajan jënd waaye ci bépp jàqare àdduna ak àllaaxira wala suqu tam war sagal ko ñëw si laa ta suñu sa suñu soqi wut ci kalam yonent sallallahu alayhi wa sallam xon ibnu malik laf jaay kenn ci saa laanu la doomam dañ ko jàppoon ci xarab lu mu ci yonent bi jàmbat ne ko yonent bi màggat na xaw ma dara xaw ma lu ma sama benn doom xoof noonu jàpp nañ ko su ma jëm yonent ne ko ragal yàlla rek te wàcc nañu ci yàlla yàlla dañ la wërsëgal foo ko jot a yóbbu mu te ba jël sa xooram di wax laa laa xawla wala quwwata illaa billaa ali laa fi wala sax laa yàlla ma xëy na war fukk mu ne laa ko fi mu taxaw ko rek moom la sàggan doom jagal ji rek ci ñu dëkk yi rek ci leen ñu dëkk tëgg bàyyi bi ci guddi ñu ko ñëw xanaa ñu naan ci ñëri jëlee yoon mu laaj mu ne jëlee ñu ne balaa ñu koy jël ñu laaj yonent la woon rek ñu laaj yonent mu ne la woon doxale ñu xaraare la laa nga boo xam ne ku ko taxoo rek fii ko dugg rek yàlla la nga jëme nekk nañ ci bari yore ko ko ngor tagal ci ñëw laa ka siñu dafa mu doxee ci xelam o nga tawakkal ku door ñu ala ci yàlla ko mu xas waa ji doole ko ina laa naka yàlla baale ko aji yàlla mu am réew bi dem ak yàlla laa def na yàlla li kulli seen ñu def la xadaram waxtu de walaay jigéen ñi nga xam ne fekk ñoo ci nen léegi noonu dana ñu naa ko ñoom nay di jënd rek mu ñu fay ci jigéen seen ñu yëkkat ko dem ci jigéen fay da tena da seen sala ko ci ak ñetti weer lañ de jigéen bi magat ba di jënd rek ñu ne mooy doomi juróom fukki at ak juróom ba wala juróom benn fukk boo xamee ne jigéen dana foofu ñu ne mooy doomi juróom fukki at ak juróom ba wala juróom benn fukk boo xam ne jigéen nag dama foofu xam ne dootu gis mbërëg kooku ne baam mooy ñetti weer rek ñu ne jigéen bi gisagul mbërëg nag lu mat tuutam mu ne walaay ak ñaan ñaan la ñu waxee ne mbërëg bi ñu ak jigéen gi ndaw ba gisagul mbërëg kooku ne baam ñetti weer la de boobu laatu laa maale borom démb la ajalul na di teen am yobbaanu boobu ñëw si leen am la woon mu tende jigéen ji xam nag ne baam mooy ngosin la mun rek moo xam mat na moo xam matul boo xamee ne kase nañ ko fekk benn jëndee ko rek mu wasin booy ne baam jeex na bu jëkk dem deexee fekk benn jëndee ko rek mu wasin booy te jëm jeex na ba mooy tax ko ragal noonu laa lay yan bu def loolu ñaan ko mun am réew ci mbiram isran ak jàppandal de daali ko dole amrulaay mooy àttee yàlla am solo wàcc na mu koy léegi bu tende ba mooy tax ko ragal noonu laa lay kasar mu sarab an walis ko fi ak yaay bakkaatam de way wasin tam magal rek ngeen ko ajrama ab yoon ak na dëkk yi dëkk loolu yëpp leer ñoom ñu ngi fas boo ko fekk yéen na nga ko bàyyi dëkk ci néeg ba mu doon fee ba dana daam jeex ñu naan si fàttali ko fi ngeen dëkk dëkk waaye ba nag sàrtal ñu benn sàrt boo xam ne sa kenn kattan nga rek ñu ngi dugg ci kenn kattan seen. wala tubaaru na mu leen lor leen dëkk ba yëpp ngeen na ngeen xatal alee na ci ñoom yoon na nga xatal ko kat waaye bu ko génn bàyyi dëkk loolu nga tey wax ne daam mat nga di ko soxate ci ñu bëgg bëgg ñu gënal boppam loolu buñ ko def rek way ko non def nak nañ wala di xam ni yi waral ñu dem ba am ko ñu dem xale yi ci ñama ta ta na bañ wasin am la ñu dem télé boo ko fekk yeen ñu ñu ya gaddu du dem bu ñu wasin tay ar daana dem nan fal nañu la ko ñaaleen fa aatu na wax leen ñu joro na yoon ci na fa sen de su fekkee wasin na doom jota fete ko ak doom jëm ko nam balé yow baadi ya koy fay de wa tamiro ñu tappaleen daal ko ndigal seen bu maro buñ ci xam ci yoon de way ko en sortu dem ci lan tan yeen su fekkee ko ñu lay taxata maram na waaw nga ndaw si lànk ne moom du ko nampal wala fëte nga ko yéen nga ne waaw doo joxe fay waaw ñu di ko nampal te waaw nekk fi parce que pour doo xal na nampal loolu ñan ko xaaji nañ yéen de bon yoon ko saani na ñu tan ko jëleen bi yéen di ko nampal bàyyi bi di ko fay muy jot na dundale yoo saatin borom ko min saa ci kawam koo xam ne dafa bëri la nekk na joxe lu bëri wa man ko dila ko ci xale na alay ci moom ko wa tagam da leen joxe la mu dundale ñu ta ala ko la joxe ko yàlla ku bëri ne joxe lu bëri ku néew la joxal lam sa kan kattan de la yukallifu laa tafi di yàlla nakon ba ko la ma ta ngara la mu jox ko tay lu laa waxal naa ba yàlla ba ba ma fi te gannaaw joxe yu fan ak jàppandal jox na ko gannaaw da ci saaba yu ñu fi wa kaayim bay na min xarit ñu nga dëkk xatat ba mooy ñu an am rabba ay ci ndigal ndigal borom seen rëbb ya ci yéen tam taxafar naa ka ñu sam leen ci saaba ñu sam fa jeen gi daaji tam wa far naa ka ñu ndigal na saaba ndigal ñu kuran gi daaji tam fa ka tañ mo te wala am reha ñu dem dikkeen wa kaanu ta nekk ha ko do am reha ñu dem dikkeen ko tan dikkat de ah da la xad na yàlla do ñu la ñu saaba ndigal ta du ngi daaji tam ta takku la ragal yàlla yaawu ndal baabi yéen yéen war mu kan sall Allah dina ñu ana ñu dem ñu qad anzalallahu wasal na yàlla ilaykum jëm ci yéen dikran alquran rasulan ngeen di noonu ab yonante yet nga nga gën a mu jàng alaykum ci yéen ayaatilaay kaa tani góor mu bay naa tani mbir mi ngeen digal mu ngi ko jël mbir mi jël rek ni nga am na ñu am rek def ala di farata ak naafile ya mu la sulu ma fi yëkkati ci kéefar ci leen war a gën ci gëm yàlla de o man ñoo ci gëm ñu bilaay ci yàlla waaye amal tam jëf kaa leen jëf ñu mu tëyu xarta ko jama ci tool da ci gëna doon da ci ak ci sama mari yoon yonante xaali dina nit ñu jël jël daa ci wala dool abadan ba tar xaraxta mu baaxoo rafetal na yàlla lawal ñu al tool xam nga sax na wër sa waa jàmm allah yàlla basi mooy buur bi la xam ne xalaqa bi mu sala samawaatin juróom yaari asamaan wala ñu lam bi mu ngi ci ci taw na tem tem juróom yaari tam yata ma sala na wàcc lamru wa yidi bayru na diggante seen ne jibi la ngay jëlee asamaan bi ni way di gisu di taalam yoom bi ngeen xam an allah naka yàlla xadir na jaat na mara ko di ci lépp rek wa an allah naka yàlla xat ahaata leen na ni di ko ci lépp rek man ci xam-xam